jaajëfal Omar Tunkara soldaaru réew mi nag wax nañ gannaaw bi nga xamante ne nii Sénégal seen soldaar yi dugg si nañ fii ci biir réewu Gambia jàll boda bi pour jaaree foofa ca diwaanu Farafeñe su ko defee nag ñu mun a dugg foofu sa diwaanu Casamance gannaaw bi nga xamante ne ni Sénégal seen soldat yi am na xeex bi nga xamante ne tàmbal nañ ko seen diggante ak MFDC rebel si nekk foofu ca diwaanu Casamance ci dimanche bi loolu nag waral na soldat yi réew mi am na ay kaddu yoo xamante ne gaar nañ ko di indi ay leeral di wane ne bagage yooyu bala ñoo jàll booda bi nag am na gestu yi nga xamante ne def nañ ko si pour seet ba xam ndax bango bagage yooyu méngoo na ak li nga xamante ne la sénégalais forces yi am seen pamit bi pour ñu dugga si fii ci biir réew Gambia ñu teewli si Dado Thiam ci jaxasoo bi nga xamante nag dox na ci diggante ñu yore wàllum bunti kaaraange gi foofa ca booda Sénégal ak Gambia rawatina fi nga xamante nag mooy Casamance doon na loo xam ne ñi fa ne daal ci jamono juntool ni nelawatun ba yandoor ko war rek mooy jaxasoo bi nga xamante nag mu ngi ub seen bopp bi tax na nag nguur gi ci boppam fii ci biir réew mi ñoom ñi ngi def seen i kéemtalaay kàttan su ko defee rek ñi daal di war a mën a seet naka la ñu def pour delloo jàmm bi nga xamante nag war na war a mën a am fii ci biir réew mi rawatina nag luñ seex ak lii di réewum Sénégal ba tax na nag am na ay moto yi nga xamante nag di ay moto gànnaay ci wàllum bunti kaaraange nga xamante nag ñu ngi doon daal di aw fi nga xamante nag mooy yooni Farafeñe bi nag jëmalali fi nga xamante nag mooy Casamance waaye gannaaw loolu ñi nga xamante nag ñoo yore wàllum bunti kaaraange gi fii ci biir réew mi leen fexe daal di leen euh, taxawal su ko defee ñi daal di seet sart ak yi nga xamante nag war nañ ko war a mën a tëddal ci loolu euh, seet naka la ñu pour loolu du indi ab bëj jafe bi nga xamante nag euh, dina judd ci lii di yoon booba ak itamit nag li nga xamante nag la gaay nekk di waajal foofa ca Casamance waaye nag nguur gi ci boppam rawatina président Adama Barrow ñoom nag wax ne ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan pour fexe daal def li nga xamante nag moo leen war tànk ab nguur euh, pour fexe jàmm bi nga xamante nag war na war a mun foofu mu daal di war a mun a continuer ami public relation officer bi ci boppam di Malick Sagnang euh, moom nag wax na ne daal li nga xamante nag mooy Sénégal euh, foog rek ñi daal di a mun a am li nga xamante nag mooy ay pamit maanaam li nga xamante nag war na doon ab nangutoo bu dox seen diggante ak réewum Gambia ñi dal di war a mun a dugal yenn yi fii ci biir réew mi Dado Cham Star TV